salaamaaleykum dal leen jàmm fii ci Lougaré TV nu ñu koy defee bés bu ne seeni i tey nag matinal spécial la ndaxte dañuy waxtaanee li nga xam ne soxal na askan wi nekk actualité rawatina ñu waxtaanee ci li nga xam ne mooy mbirum politique ak yu nu mel. tey jile nag nu ñu koy defee saay su ne ànd ak suñuy chroniqueur suñuy chroniqueur yi nga xam ne am nañu solo bu baax a baax seen xam-xam am solo ñiti di ko taawetlu di ko rafetlu bu baax a baax. Mamadou Lamine Fati nekk ci présentation bi damay tàmbali ci daam daam di la ziar di la nuyu di la dalal jàmm ci Lougaré. waaw Lamine maa ngi lay fay di nuyu toute l' équipe de Lougaré TV di nuyu amee ak internet yi nga xam ne ñoo baaxoo suivre Lougaré TV comme rappel rek di ko wax rek ni ñu ko baaxoo defee ñu ngi fii ci studio Serigne Abdou Fatah Mbacké Fall bu Lougaré TV. kon lan ñu bàyyi la nga nga doxal. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax moom daam damay tourner ci Marie euh, la dame médical de la maison santé mbirum santé wér-gu-yaram léegi transport la.

xale boy booy bu xaw a wi dinaa wax ay affaire léegi ci kanam ci incha alors Aïssatou nuy nañ la di la ziar bu baax di la dalal jàmm. Mm, maa ngi lay fay maa ngi di nuyu yéen aussi également di len jox seen wàccuwaay di leen wax bienvenue à Lougaré TV. bienvenue à Lougaré TV alors bienvenue à tous c'est la matinale de Lougaré TV comme nous le faisons tous les jours tous les matins. ici à Lougaré TV tay nak euh, ñuy waxtane ci li nga xam moy Assomption moy 15 euh, août.

donc loolu motax lañ koy chaque 15 août nous def ay célébration diko def ay nous di def ay ci église ba inshallah ci kanam sax dinañ def ay euh, midi bi ñu def ay reportage wax lan assomption ay prêtre ak ay nitu chrétien mais ñun tamit dinañ yi nga marqué bu baax histoire. histoire suñ ko waxé moy bu mu yi nga fi adage sax derrière tout grand homme une grande dame. mais nous, bari dañuy wax il faut changer adage wax. à côté de à côté de tout grand homme il y a une grande dame donc euh, nit nous bu mag bo gis ci wétam amna jigen bi nga xamné mo fa nek euh, donc nous, motax tay la peut-être que hein, euh, dame hein, ñu waxtané un peu assomption mais assomption bi.

nekkoon jigéen goo xam ne da doon jaamu yàlla doon wéetal boroomam ba ndogal bi bi ñëwee suñu boroom borom yónni Seydina Jibril mu ñëw jox ko mission bi indi woon polémique bu mag ci zone boobu mu nekkoon ndax dafa def loo xam ne moo ko njëkk a def ci mooy indi tout tànk boo xam ne gisuñu waajuram ci ci ci saayir loolu nag jaaxaloon ñu baree bari tam mu nekkoon koo xam ne jaamu yàlla rek lañ ko xamee woon ndekee suñu borom moo nam a feeñal nitam ak yonenteem muy Seydina Isaa <laughs> ah, ba li ci am lépp am ci kon baax na bis kooku bu delluwaatee ñibbi ji aljana bis boobu ñu di ko màggal <laughs> damay wax na Mariama moom jigéen bu sell la woon sëñ Tuubaa sax mi ngi koy tagg ci génn xasida gi ñox fusti <laughs> di ci tagg la Sainte Marie kon nga xam ne kooku uh, góor yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu lislaam bu ñu demee ba jënd seen xalima di ko tagg di nettali jaar jaaram kon kooku amoon na taxawaay bu mu taxawoon ak digganteem ak boromam moo tax ñu di ko màggal kon yaakaar naa màggal bi ñun ñëpp la war. Mhm. exactement donc mu nekk li nga xam ne am na solo bu baax a baax alxuraan ci boppam tudd na ko tudd na ko lu bari li nga xam ne mooy euh, euh, soxna euh, Marie Vierge alors Marie sa turandoo la. Mhm. lan nga ñu mën a jàppandi ci moom un peu un en général ci wàll. d'accord voilà Fatick damay rek rebondir fi nga xam ne fa la daam. Wadale parce que d'habitude dañu xam nga déjà euh, Mariam dafa ya ni mu dayo bi nga xam tane yalla jox nako ko mhm. dafa mag à tel point que même dafa am benn suuraat xam exclusivement surtout Mariam mom la ko yàlla jagleel. di mhm. wax di ci wax jaar jaaram. Mhm. di wax également euh, histoire bi nga xam tane ni jusqu'à la fin des temps. Euh, dañuy continuer diko wax moy la naissance de Jésus. ku ne xam ne ni yonent yàlla Isa ni mu juddoo. voilà ba tey jii sax on peut dire que ça a créé la polémique hein bo gisee la religion chrétienne wala la religion musulmane l'indifférencier moi on n'a pas les mêmes prophètes mm-hmm. mais dans également il faudrait que nous précisions également que nous, à leur temps en fait la religion était bien valable il faudrait que nous précisions mm-hmm. ça mm-hmm. le christianisme c'est une religion révélée hein, tout comme l'islam euh, toutefois la le seul hic a maudit, islam ba ñëwé nak lañu né comme yonte ali sattou wasalaam ba ñëwé la ni maintenant euh, li nak moy diine bi nga xam te moy doon bi mujj sur terre mm. maintenant nak am ñuko gëm am ñuko gëmul peut-être que fofu la dissension bi amé mm. entre musulmans et chrétiens mm-hmm. mais on partage le même Dieu moy Allah subhanahu wa taala mm-hmm. on partage également beaucoup beaucoup de choses parce que mm-hmm. Issa ba ñëw waxon na am ko ñëw sama ginnaw ni ngeen ko gëm tay ji bo démé dans l'église catholique wala même euh, au sein de l'église catholique am ñu xam il connaissent bien le Saint Coran. ils connaissent. pour il faut bah, comprendre que pour nga prêtre. Mhm. pour nga pour il faut nga le Coran. Bah, parce que faut niveau nga Coran. xam ko bu Jacques donc Coran il mm. donc discuter lu parce que xam-xam mm. ko yonante le rek wala ko c'est ça pour li ngay wax rek mm-hmm. ndax. Euh, pour bien dit donc voilà pour dire correct euh, entre musulmans et chrétiens il n'y a pas de différence mhm. euh, voilà donc euh, de religion famille par exemple quand je prends la famille de Tchandoum, le feu nous une famille mhm. donc c'est que et sénégalais surtout ça. Mm-hmm. ni a une interreligion bi wala euh, dialogue interreligieux euh, islamo-chrétien. Mm-hmm. c'est des choses qui xam a ñu bien avant sax ay religion du dugg c'est Sénégal donc nous nous croyons en ça. c'est ça donc euh, tout comme chez nous c'est hein, une famille c'est vrai qu'il n'y a pas eu de chrétiens mais au fait comme on est on est une famille un peu voilà ñi nga xam on issu de Gorée euh, donc Gorée ko wax Gorée wax Saint-Louis euh, tu vois que ni ça faisait partie des quatre communes du Sénégal bo fait histoire mm-hmm. voilà donc c'est une autre ma woné ni c'est euh, i tour, day faral de nduróog ay tour Touba parce que man je m'appelle Marie ça mm-hmm. m'a sama rak Louise par exemple tu vois un peu donc

bonne bonne bonne référence nga ci mën a nga si mën a jàpp. tey je pense que man moom am naa lu bari lu ma wax. parce que mhm. déjà école chrétienne laa yàgg a jàngee. Notre-Dame donc. histoire Marie moom euh, xam naa si lu bari mhm. yaa Marie moom daa nekk nit koo xamante ni baaxam ñëpp xam nañ ko mhm. moo tax. Euh, Yesu a gagné ce mhm. parce que nekkul jigéen que le la chance mhm. je pense que jikkoom comme baax tax Yesu donc lu ñu magal comme à chaque année parce qu'elle nous mérite vraiment c'est une très bonne femme. exemple c'est important tu vois le nga donc euh, la sainteté. Mhm. parce que en fait nous York wax sainteté. le mais aussi nit. yow forger ce tous les grands hommes yu mhm. Mhm. suñ ko Sénégal ak dëkk. Mhm. ku ku c'est ay nit ay yu si lañ ci je prends juste l'exemple de Mame euh, soxna donc sellam ak yarutem nit. bëgg fonk donc donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait souhaiter par rapport à ces femmes je pense que

que ce soit les juifs mhm. il n'y avait pas de christianisme mhm. mais que ce soit les juifs les romains mhm. Marie parce que elle était pieuse elle était sainte chaque fois si Django nettoyer changer c'est-à-dire que cette bonté là cette générosité là qu'elle avait donc a vraiment parce que Joseph il avec elle et tout aussi si euh, cohabitation islam chrétienne man loolu tamit lu rafet la parce que man déjà moi même jàng école

parce que ñoom bu ñuy def catéchisme ñun mm-hmm. dañuy def morale. Mm-hmm. morale c'est-à-dire dañ lay jàngal yow ni nga war a comporter woo dans la vie. Mm-hmm. comportement bi nga war a am donc ñun même ñun bu ñu daan foo di dugg ci église bi aussi dañu leen wax génn leen. parce que ay musulman ngeen.

qui gis ki day tudd mari chrétien qui hmm. euh, musulman hmm. donc ça veut dire que dem ba tour bi hmm. law ndax yi nga alors daf ñuy permettre ñu mëna wax yenen yi aussi nañ Sénégal amone jiko yu rafet euh, alors qu'est-ce qu'on peut retenir lan lañ ci yi nga elles ont marqué leur temps jamono bu nga vraiment won nañ xel ci yow lay d'accord voilà Fati wax nga lu Sénégal lu ko marqué. Mm. en euh, fait li ñuy euh comment dirais-je stabilité mhm. machallah je touche du bois mhm. stabilité bi nga xam te ne am c'est vrai que les les les politiciens ils ont beau attiser le feu comme ni ñu mhm. koy waxee ah tout le temps euh, mun nañu wax ne dañuy taal dëkk bi dañuy def lii mais bon rien de ça dara du ci xew parce que dafa am benn stabilité boo xam ne moom moo je peux dire euh, ce pays là te loolu def naa bokk na si moy jigéen sel sell nga xam te ne ñoo jur yi fi am ba meññ fi euh, li nga xam te ne moom peut-être mën nañ jàpp ni mom la yalla du rousser linga nga xam te ni moom moo téye dëkk bi tey parce que ku na xam dëkk bi lu mi ngi fi xewa ah. euh, tey ji li nga xam ni xewoon na ci yeneen i mhm. jamono ba taxoon yàlla tukkal àddina xew fi moins que ça pour dire ah. que pour dëggal le moins que ça amna naa dëkk yi nga xam ne na ba c'est ça te ku seet ku fekkee en 2012 mhm. ku fekkee en 2011 23 juin élection mhm. locale élection présidentielle 2012 Sénégal tàngoon na ci wàll yëpp ko seet bi mars bi passé nii donc déjà Sénégal tàngoon en moins de rien yeneen dëkk tàkkoon na donc

par exemple moi xam muy Serigne Touba wala maam El Hadj rek nga gis ni voilà tension dañuy baissé parce que jour am na benn anecdote bo xam ne moo ko fàttee euh, jamono ñuy attaquer les boutiques Auchan par exemple am na benn boutique Auchan bo xam dafa jëloon ben stratégie dafa jël des photos de fii par la suite dañ ko dindi sax dañ ko dindi parce que dafa jëloon des photos ben photo maam El Malik ak photo Seigne Touba ñu taf ko ci pour xalé bañ ko laal tu vois un peu alors c'est pour dire que rek ni euh, bien sûr parce que laaluñu ko laaluñu ko donc euh, dafa nek loo xam te dafa am solo soubassement bobu am fi ci dëkk bi mm-hmm. côté religieux mo xam la religion chrétienne ou la religion musulmane mm-hmm. dafa nek lu am solo té vraiment nañ fexé ba sauvegarder cela parce que dëkk bo gis mm-hmm. bu amul croyance mo xam la ngay gëm même bu fekkee big bi ngay gëm sax il faut que tu crois quelque chose bu amee loo gëm rek ci adina mën dem ci ci sa c'est important alors Dame la position des femmes yi nga vraiment elles ont marqué leur temps Ah, waaw yaakaar naa eh, diine yàgg naa am ay jàmbaar. Mhm. ndax eh, borom xam-xam yi dañuy wax ne. Mm. yàqul suñu borom bi du ko def ci ndab lu setul. Mm-hmm. moo tax eh, bépp jigéen bu bëgg am ci yàq boobu rek. Mm-hmm. war nga am benn comportement booy mel. Mm-hmm. te histoire nous a donné raison. Mariama bu fekkoon daa benn comportement bu ñëwee ndogal bi ñëwee danaan bettu ma woon. Mm, waaye bi ndogal bi ñëwee. ñu si jàmboor yi seen yoon nekkul teggal nañ ko tuuma. Mm. na kii de lu baax rek lañ ko xam. am ñu ko doon tuumaal. Ah, am na ñu ko munul ñàkk. Ah, munul munul ñàkk foo gis ku lay ku lay waxal lu baax gis ku lay waxal safaan ba. waaye wéetutoon ci xeex bi ndax am na ñu ko doon seedal jëfam yu baax. Mm-hmm. Eh, bu ñuy jógee ci loolu dañuy ñëw ci turandoom soxna jaaro Bousso moom. Mariama Bousso mm-hmm. eh, ñu naan ko jaaratulaay nekkaale dëkkaale ak suñu borom moom it. à 33 ans ci la defa ci la ñibbi jamono. ci la liguel suñu borom jàngi fi alcorane mo fi alcorane bindi fi alcorane il fi njabotam gu tedd gi ba tay fo tuddu tuba ci ci aduna bi ñu xam ko jigen yoy dañu wut suñu borom ak jaamu yalla ci lañ nekkon ak a ndigalu suñu borom kër. et ce qui est magnifique si Dame Ti lu ma impressionné honnêtement ay ay yi nga xamné la amuñu âge bu avancé. maanaam mu waxuñu ñii dañoo dem ba soixante dix ans quatre vingt doo ko doon lu ñu doon. xam nga seen période ndaw fu nga xam ne lu ñuy wax ne ndaw mu ngi doon ci diggi dooleem. foofu la ñu marqué seen temps ci wàllum jikko. ci mhm. wàllum euh, sainteté ci et cetera et c'est magnifique. xam nga xam nga Lamine day am adage boo xam ne dañuy wax naan aux Zambiens la valeur n'atteint jamais le nombre d'années mhm. maanaam nit bu naree baax mhm. dépendre ci ci at muy am ndax góor yàlla yëpp ak gaa yu baax yëpp. boo xoolee mission bi ñu leen koy jox ñi ci gën a bari la ay 40 ans la ñu am. Sëñ Tuubaa gis nañ bi muy dem ci géej gi bi mu amoon yonent sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans lañ ko dénk diine l'islam. Mhm. ak ci lim ci doxal. ak bi mu am 60 ans 63 ans la la génn àdduna. moo tax parfois da ngay tiit sax suñu réew mi da gis ko am 30 ans 33 ans naan ñu ñu koy wooyee jeune wala 40 ans man xale la. Mhm. loolu da ngay tiit ndax doomu aadama bu xasee xàmmee ràññee rek. maanaam lépp ci responsabilité am ak volonté am ak détermination ci la koy amee ndax yàlla bu ñu joxee xel la ñu bàyyi ñu dem ak suñu bopp kon nag nit ki nañu am détermination ndax boo xoolee jàmbaari lislaam yi nga fi dégg yëpp soxna jaara bu sa maam fàddu wele ñoo ñëpp ci at yi ndaw lañ lañ lañ lañ lañ fàggu mm. li ñu fàggu ci lañ liggéey ci li ñu liggéey ba yàlla boole leen jox leen doom yoo xam ne tey foo leen tudd ci àdduna bi ñu xam leen Seydina Aïcha ñi ngi wax naan bi muy dem bi muy dem bi muy bi muy bi muy dem ci kër Rasulullah ñi naan 9 la ñi naan 12 ans la am dem nañ ba yonent bi naan lu ngeen di laaj bu ngeen ma fi fekkul laaj leen ko Seydina Seydina Seydina Seydina Aïcha kon nga xam ne détermination ak gëm-gëm ak Pastef rek mooy jàllale doomu aadama euh, Lamine nag bëggoon naa leen a indil benn bayit bi nga xam ne Serigne Touba mi ngi ci tàgg la Sainte Marie mën nañ ko félicité à toi Marie surabondance de bonne œuvre sainte patronne des femmes saste et charitable. Tu es au-dessus de toutes les élus du Seigneur, sublime et insondable. L'acte existentiel de Dieu t'a pourvu sans contredire du plus distingué des messagers. Bonheur à quiconque place sa confiance en toi sans déprobation aucune. Car il est évident pour tout croyant que tu es la favorite des humbles obéissantes toi, la mère du meilleur des généreux, ceci, tu es affranchi de tout culte autre que celui adressé au Seigneur. Hmm. infini, saint, mérite compter à ton endroit m'ont conduit à te rendre hommage par cet ordre. Tu as été, gratifié de faveurs qui rendent bien heureux tout croyant, spirituel et convaincu kon nga xam ne Serigne Touba mi ngi tag mari mhm. ci ci ci ci meloo bi mu amone ak jikko yi mu amoon ak mbaax gi mu baxone nga xam dal mari exceptionnel la ku ku ku mhm. yàlla baax la wala yaakaar naa kay la mhm. ci ci ci bépp jigen c'est important hein donc sëñ Touba mi dem ba tag mari xam nañ ne vraiment ay valeurs soko cété côté valeur surtout le génnee ci mom valeur jikko yi nga xam ne mu ko don incarné et c'est important ci wàllu bobu alors euh Aïssatou c'est Touba wax na donc ñu gaay ñun fi wax nañ ko côté valeur mm. est-ce que c'est pas aujourd'hui difficile surtout ndaw yi nga mm-hmm. mais est-ce que on peut retrouver yenn valeur yi si jigen yi nga xamné surtout par exemple en tout cas man damay ñàkkuñu exemple parce que Mame Diarra mu ngi fi mais aussi yaay booy yaa Seyda Mariama Niass euh, yan man foofu jàngi naa fa aussi yan ñu ngi si diine ak l'islam mm-hmm. jigéen boo xam ne soo ko gisee carrément na nga xam ni kii nitu diine la parce que leer bu muy reflété la donc man je me dis que jigéenu Sénégal surtout ñun jeunes yi kenn ñu gën a yiw wala ko wala ñu gën a yaru si àdduna bi mm-hmm. parce que am nañ exemple am nañ ay nit yoo xamante ni liggéeyal nañ ñu bàyyi fi et je pense que loolu dafa war a mais mais soo xoolee seen comportement léegi je te dis que est ce que loolu mi ngi am ba léegi su su suñu jëlee si soo génnee si suñu yaay peut être âge ay ñoom marié ni boo si génnee man sama génération est ce que bari na jigéen yi nga xamante ni tey jii wéyal nañ li fi maam yi bàyyi su amee aussi bàyyiwul te loolu bu jaretit la et pourtant ñàkkuñu exemple boo duggee ci Google mën nga jàng histoire Mame Diarra Yabou yi mën nga jàng loo bëgg mais non non tey jii ñoom lu ñu am je me dis que utiliser wuñ ko

mu maîtriser France que histoire France que histoire Sénégal. histoire France le gars maîtriser que ah. l'histoire Sénégal. Mm-hmm. y' a Cheikh Anta il y' a Mame Diarra Bousso y' a et cetera. les exemples. parce que boo nekkee primaire les lay jàngal histoire Sénégal Sénégal même boo xasee bu dugg lycée collège dootuñ ko waxati. parce que booy xool histoire géo sax yow France lañ lay wax. développement européen est ce que ñoom dinañ toog jàng ñun suñu histoire Sénégal. pourquoi ñun mënuñu jël indépendance ñun ñàkkuñu histoire quand même. Mm-hmm. ñàkkuñu histoire mën nañu jàng si nit yu bari ak ñun suñu suñu culture suñu tradition. l'Afrique berceau de l'humanité berceau de l'humanité donc ça veut dire fii la humanité bi sa dama lay wax gars yi nee leen boo demee suñu littérature lañ ñu fay jàngal ay Molière ay Jean-Jacques Rousseau vraiment parce que boo demee dañu naan littérature africaine te te te ñooñu lan ñuy wax réalité yan ñuy wax ak suñu réalité duñ benn. te boo ñëwee boo demee ci mbindum sëñ sëriñ maam sëriñ Touba maam Limaamu Laay mm-hmm. euh, euh, euh, maam Maodo liñ lay waxal. di nekk ci diiné ba paré nek sa sa culture. nekk sa philosophes c'est au-delà de ñoom c'est les philosophes. ñoom ay Pape Maodo Serigne Touba ak c'est des philosophes. doctrine yi lay jàngal boo ko da ngay nekk nit koo xam ne nit ko ci yoon ngay doon ba pare doon da nekk nit koo xam ne yàqu day denc moom mhm. mais malheureusement li ñuy jàngal amuluñu amuluñu benn njariñ parce que culture yi du ñu benn pourquoi xale daara su jógee daara ñëw dugg français mhm. gën a intelligent que ñeneen ñi mhm. parce que déjà dafa am ay acquis yi nga xam ne moo nekk ci moom ay pré acquis yi nga xam ne dañ ko installé ba pare tàggat la yooyu moom yenn suy ñëwee rek da koy assumption Assomption ak jigéen yi nga xamné marqué ces ah, marqué euh, l'exemple de Mme Bousso ak mel donc yoy lañ ton jël exemple pour wax ne rek l'exemple est là ñi nga xam ne waroon nañu war jël def ko référence il suffit juste que ñu ñu remodeler encore suñu système éducatif mun leen jàngale Cheikh Anta Diop da doon wax ne celui qui peut pas te donner un exemple ne peut pas te conseiller. nit ki su la munul wax ni nii lay demee nii lay demee munul la jox ne nii lii nga wara a def daal. donc tubaab yi nga xam ne ñoom la ñuy référé dëgg la war nañ leen jàng mais war nañ jiital aussi ñun lu xam ba pare doo aussi si jàng Cheikh Anta Diop day insister di wax ne. Hmm. amul benn pays bu développé ci langue keneen. donc musta nekk. Hmm. pour nga développer par xale bi soo ko jàngal ileer nga koy ñëw di ko wax non mooy affaire boobu non jox mm-hmm. ko ileer mooy lii mm-hmm. wan ko ko moo wax ko nii la ñuy bayee nga li nga mën a jàng ci beneen langue nga jàng ko yow sa làq sa kàllaama mm-hmm. ci lay nit ki di gën a xam lan mooy bay lan mooy lii lan mooy lii lan mooy lii donc c'est important xam nga maa ngi maa ngi nettali benn anecdote di dëggal li nga wax rek benn waaye bu xoromu ndeysaan day day day day day nettali day nettali ne doom ji daa ñëw ci papa ji na ko papa jadi ko jangal nan ko papa dañuy don jangal tay prix de revient papa diko expliquer ah prix de revient moy tu as acheté une mangue à 100 francs tu as fait transport 100 francs hein ah. tu as fait taxe tu as, tu as fait les taxes, fait taxes. Euh, L'enfant ne parvient pas à comprendre, ce que dit ton père. Exactement. Mu ñew ci yaay yi mu ko yaay man prix de revient sama papa mi ngi expliquer mu ko comprendre. Lan moy prix de revient mu ko bo démé marché tiaro nga jënd fa mango 200 ñëw jël kalandoo cent franc boo accès ñaata nga feree ci mango bi mun na ko trois cent mun na ko loolu mooy prix de revient jeex na te xale bi paa bi def na ko lu ne dóor na ko mbéj na ko lu ne xel mi neexul nangam nangam mais du ñàkk xel mu neex la mu ko koy waxee la xamul. Mhm. français bi la déggul du calcul la mënul de mais français bi la déggul. suñu blocage bu njëkk loola. presque six ans yi ngay def primaire yëpp da am problème mu lan. du problème mu naqari xel de mais problème mu dégg français ngay am. moo tax li lay jàng da nga am problème pour def ko. loolu rek mooy blocage bi moo tax suñu autorités yi war nañoo xoolaat bu baax surtout loolu te boo xoolee mag ñi baax ñi li nga wax dangay ngay génne daara sëñ Saaliw ñëw nekk def benn ñëw ci commerce bi def ci benn un an deux ans nekk entrepreneur bu mag. jeex na waaye marketing bi ngay def ci commerce ñi nga ñi nga xam ne ay ay master lañ jëm ak ay doctorant ko man mhm. boo defee mécanique noonu foo dem boo demee Bawol Bawol yi nga xam ne dañoo jaar ci daara yi. jaaré tarbiya bu ñëwee domaine bu ñu dugg bu amé dañu dañuy exceller kon nga xamné ne xam-xam nekkul ci jang français wala anglais anglais français li wax gaay yi moyen de communication la mais du xam-xam. Mhm. c'est vrai Lamine man na jang mécanique ci chinois. Mhm. da man na jang mécanique ci anglais Aïssatou man na jang mécanique ci séeréer. moyen de communication la rek. kon tamit foog ñu baye xel lool te bañ am complexe te suñu téré ñu fi mag ñi bayil yalla xam ne ko doon jangalé suñu école yi nit ñi romb nañ fi et c'est important damay damay wax am na téere bu sëñ Tuubaa bind ah, man labul man labul sifaay mm. pour xale yee ko moom. ndaw nan la war a comporte comporter pour mucc ci àddina nga jël ma masaalikul jinaan lépp lu doomu aadama soxla ci dundam boo demee sëñ Tuubaa bind na ko foofu. c'est important vraiment dañoo am dara ba pare xamuñu ko di yem jëggaani loo xam ne amaluñu benn njariñ. soxlawuñu jëli feneen ah, daal ndax ndax li ñuy wax le développement il est il est il est il est il est endogène. Mhm. développement dafa endogène. réew mu ne la koy développé ci zone. ba lay jógee mais développement kenn du ko importé malheureusement nag ñun dañuy importé ay modèle bëgg ko pratiquer alors que buñ ko pratiquer toujours day faussé. parce que réalité ah, jàmbur soo ko bëggee jàng un. Mhm. il faut que mhm. sa xel. nga traduire ko ci olof. Ah. ba nga comprendre ba pare. te te doog a traduction. voilà pour mun ko expliquer. ça dit c'est tellement compliqué que alors que suñu la ko waxoon ci langue bi. ngeen traduire c'est trahir. exactement ah, exactement alors ay yaa ngi don def wala c'est bon. si si parce que man je me dis que complexe boobu nekkul ci langue kessé ba ci habillement bi ça hmm. joue. parce que tey jii nii soo demee ci lieu administratif

def garam bu wala buubu am. c'est un c'est grand intellectuel boo xam ne bu la waxoon na man mi intellectuel la daa xam loolu mi ngi commencé dañ léegi boo demee ci dem comportement yu bari dina dina dina. wala mm-hmm. di ko sol. di ko mm-hmm. def dans un clip. loolu c'est mm-hmm. parce que voilà y évolution. Euh, non boobu. bien sûr bien sûr tendance boobu vraiment ma ngi gën dem ginnaaw ak léegi affaire costume africain parce que tey voilà costume africain yi xew. dem nañu ba et là je dis que on le doit à des chefs africains, à des chefs africains comme mm-hmm. euh de l'exemple exemple du Gabon par mm-hmm. exemple. Euh, exemple de la RD Congo. Mm-hmm. parce que c'est des pays où xam ne ils ont leur bah c'est ça Mandela ils ont leur leur leur euh, tradition. leur coutume yoo xam dañ ko gëm. Mm-hmm. ñoom ak lo mëna sol foog nga def le pagne traditionnel. traditionnel dañ ko gëm te fuñu mëna mën dem même au point des Nations Unies moom la ñuy vétiro fii on a notre cahier mais Macky le président Macky Sall kenn du ko mës a gis en cahier mu euh, dem aux États-Unis hmm. non euh, donc voilà cahier mën nga ko sol stylé hmm. parce que cahier am na defar ko ba mu nice ça dépend ci format bi nga koy def rek alors euh, xam naa ne waxtu bi ñuy def xawut bari hein, c'est juste que tey rek ñu doon waxtaanee ci Lougaré TV li nga xam moy matinal bi hein. dañuy cupp mu ndaw rek yi nga xam ne fan yi yëpp yéen a dégg ñuy wax ne ci deuxième partie bi ñu ngi wax ne li nga xam moy euh, euh, remaniement hmm. maanaam ministère euh, ministre manam gouvernement bi nga xamné hmm. ñu ngi hmm. ñu ngi xalat né wala ñu ngi ñam njort né que mën nañ ko changer fa yi nga xamné fofu lañuy jëm ci lolu nak wa bëgg na très rapidement ñu sand ci xel donc ci premier ministre bi nga xamné xam ngeen ne génné won nañ ko ci constitution mais delloo ci wat nañ ko ci biir constitution bi président de l'Assemblée nationale nous avons fait dem 14e législature bi nga xam war nañ fi installer mois d'octobre, hein. mhm. je pense octobre donc nous avons commencé la session nous euh, avons ñu dem l'Assemblée assemblée nationale y aura un président un nouveau président de l'Assemblée nationale kan lay premier ministre bi kan lay nous ñu très rapidement. alors mhm. je démarre par Marie. ça mhm. euh, va ci wàllu boobu lan voilà Lamine euh, ma sama xalaat rek mooy pratiquement li nga xam te ne ñu ko ci parce que tay amna des pressentis maanaam ay nit yo xamni nañu ne le chef de l'État amna na si confiance mu leena jox euh, en tout cas on a vu que Seneweb a fait une proposition de sept personnes cette personne là def ministrable ñom lañ mm-hmm. ah, une dame de fer également euh, c'est la surprise du chef de l'État parce que nous mënu mm-hmm. peut-être Aminata Niane mm-hmm. euh, à la primature voilà Amadou Ba il a sa force également euh, Bo euh, sa proximité voilà sa proximité avec la première dame wala en tout cas il a fait ses preuves pour mm-hmm. améliorer les finances au Sénégal mm-hmm. c'est le choix de l'expérience Mon mm-hmm. expérience peut-être que je ne tax pas me placer ko à la primature lui c'est la force tranquille mais ku mais vraiment c'est un grand technocrate Bo il pourrait faire l'affaire Mamoudou ne je sais pas si tu le connais non voilà, il fait partie des Sénégalais ils vivent euh, à Paris, Paris-Bercy. Euh, bon, voilà, euh, le chef de l'État de nous débauché, Indoukofi, également, il ferait la surprise au Sénégal. Euh, mode tamit euh, voilà touram yàgg na di law ah ñu ngi wax nenañ voilà mom euh, c'est l'homme de confiance euh, voilà ça Abdoulaye Daouda Diallo lañ wax ni c'est l'homme de confiance du chef de l'État Daouda Diallo voilà ku ne xam ni il a fait ses preuves tout récemment oui récemment ci législative également pendant les locales également il a battu campagne te gis nañu tamit limu prouvé hein mm. Amadou Hott c'est le technopole mom non lañ ko tuddee parce que nenañ technocrate techno mm. voilà mom tamit il pourrait faire l'affaire côté Finances euh, finance en tout cas tout ce qui est économie Touré également c'est la dame de fer donc euh, tête de liste nationale bu Benno mm-hmm. euh, tamit comeback la def mm-hmm. ku ne ne mm-hmm. voilà à mon euh, xawoon na ko dégager un peu c'est le mm-hmm. mot. waaw mm-hmm. parce que mom sax elle était frustrée. ben instant ba taxaw moom it mu amoon leneen lu mu bëggoon Mais entre temps ku ne xam ne politique on ne sait on ne dit jamais jamais. parce que toutes les alliances peuvent se faire en politique. voilà donc euh, mom tamit ben campak la def en pointillé pour le moment. Euh, on peut s'attendre euh, ces sept personnages yi nga xam lim nañ ko ci kan euh, pour mu mun la primature, la primature alors euh, Dame même même question tey jii yaakaar nga ne à peu près dina am innovation parce que les deux ans qui restent moins de deux ans je peux dire quinze mois yi nga xam des vraiment présent bi il il il doit faire des des résultats. Ah, waaw Lamine comme ni nga ko rek. damay wax na moom premier ministre moom Sénégal yi bari ñu ngi koy xaar ndax dama jàpp ne deux ans yu ko desee euh, ay résultats yu concret la Sénégalais yi xaar ñu xaw a wàññi politique bi tuuti. mais nag euh, gars yi moom lu ñu def rek politique day dugg ci biir même première ministre soit di premier ministre sax président dina xaw am problème pour teg ko ndax gars yu bari ñi ngi xaar euh, pour ñuy jox leen place boobu ku ci ne ni ay Amadou Ba ay Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ñoo ñëpp xam ne ay force tranquille lañ. ay jàmbaar lañ sur le plan politique it ñoo ñu fi tudd hmm, à part moto ot hmm, euh, quelques noms yi nga xam ne ce sont des inconnus yoo xam ne kenn xamu leen ñu sees ñëpp sur le plan politique am nañu apporté Macky Sall lu ci mel ne ay Abdoulaye Daouda Diallo ay ñoom Aly Ngouille Ndiaye ay ñoom hmm, Amadou Ba mm-hmm. ay ñoom Mimi Touré la de fer ñooñu Euh, sur le plan politique am na ñu am lu ñu représenté même sur le plan euh, liggéey it wax dëgg yàlla ay jàmm ay jàmbaar la ay jàmbaar lañ. Euh, Aminata ñaan tamit kenn ku ne xam na liggéeykat la moom tamit jàmbaar la war na mën a apporter lu réew mi man daal su ma sañoon Macky Sall daal gouvernement bi muy teg mu nekk un gouvernement de d'ouverture. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne Sénégal moo leen ñor. ñu bëgg a réew mi indi solution ci ci coono yi nga xam ne moom la Sénégalais yi jànkonteel mu concerté ak ñoom pour ñu ànd liggéey mm, feeg 2024 lu ne xaj na fi.

les gens ont besoin de changement ont besoin des jeunes ont besoin de travail vraiment les femmes les les jeunes en général mm-hmm. ont besoin de voir vraiment le bout du tunnel. Hein, donc vraiment avec li nga pétrole bi gaz mm. les minerais yi nga xamné vraiment qui di doon mu doon mm. espoir bi vraiment doon ans yi nga xamné mo mm. vraiment mu impulsion d'espoir bi très rapidement on va terminer Marie eh, on démarre euh, par si Aïssatou ah on va démarrer terminer ci ci Aïssatou alors lan ngay tàggoo tey ci 15 août bi nga wax ñu yenn ndaw yi nan ngeen ko nara a préparé ngoon. xam naa ne daal Saly fees na. lan fees na Saly. Saly fële. Mhm, parce que gis naa benn tweet si Instagram ñu ne hôtel Saly fees na te mbedd Saly wéet ah, mais mais lu ko feesal célibataire wala marié ñoo ko feesal. en tout cas daal xale yu bari lañ fa.

du wax dara alors bari mhm. <laughs> la koy tàggoo. waaw dañuy rek rafetlu émission bi Fati. di joxe rendez-vous euh, voilà demain. incha allah pourquoi pas. Euh, wax en tout cas benn mot de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles man ñoom laay waxal. xam nga tey c'est c'est bien beau hein de de de vivre sa vie ku ci nekk am nga des pulsions. Mhm. mais xale jigéen nañ def très attention classe su daam gii.

sans les non de non tu vois voilà vidéo c'était pas joli c'était pas joli de toute façon toute façon nous moment Nous vivre mais vivre c'est ça qui est plus important à l'origine nous 15 août mhm. parce que euh, mari

ah di lu bu baax a baax yow xamna naa Aysatu Ngoon di ñu wax duma nan nga passé won sa fête idem Aysatu idem dam dam mom vraiment demé bëgg na non dam tay dama koy yeewu parce ah, que soo ko dina dem te li muy def ci da fay ëpp. dam demul fenn dam mom mi fi mu tëdd mom dam mi ngi ay waay di la jaajëfal bu baax a baax yéen nga xamné yeen ñu doon suivre Mari ndjay Mari ndjay Ngom mo fi nekkon Mari Ngom wax Mari Ngom bi. Mari Ngom waaw waaw d'accord Mari Ngom ndjay neex na nak yow yow Mari Ngom mo nekkon ci benn wàll bi Dam ndjay nekkon ci benen wàll bi Aysatu ndjay tamit nekkoon nekkoon si weneen tey njaayeen ni ñoo fi nekkoon Mamadou Lamine Faty si présentation bi ci euh, cadrage bi ci caméra bi ci régie bi euh, ki nga xamné ne Alassane Ndoye moo fa nekkoon ci régie bi ak réalisation bi Abdoulaye Sow diko ko bu baax a baax waaw di wax bienvenue re bienvenue ah hein. après ça maladie da dañ ça doon eh tappale rek lay def di leen jox rendez-vous suba incha allah jaa ngeen jëf